jërëjëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee ba tey euh, jóge nañ ci champion fekk si waat champion nga xamante ne bu ñu nee double moteur xel dem ci rëbës xale boo xamante ne macha allah li muy mobiliser ci làmb jafe na ngay gis mbër moo xamante ne ci génération dina mobiliser loolu rouge blanc yi bu dugg see stade da xam ne kii vraiment moom moom bés bi ndax <laughs> dayo bi ndax waa rëbës li ñu ko bëggee yaakaar gi ñu am ci moom. korite nañ ci jàmm eh, ñuy ñaan rek comme niñ koy defee saa ne eh, bépp koor bi nga xamante ne jot nañ ci jaamu yàlla luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko suñu borom nangu eh, ñu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi champion maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. maa lay siyaar bu baax baax baay jili di la fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa àdduna di nuyu waa monde di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq xam di wax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bu ñu génnee ci koor bi ñu ci duggee bisimilah génn ci ak di nuyu kilifa diina yëpp di baalu àdduna bi yëpp ak di baal ñëpp ak di jaale mbooleem ku gé ku ci génn àdduna ñu lay ñaanal yàlla yërëm la te xaare la àjjana ñu fi des suñu borom yéexal leen ñu des ci mbas mi tamit ñu leen di ñaanal ñu mucc si jàmm xam nga ak ñii nga xamante ne tamit dañoo nekk si ay coono ay jafe-jafe muy waa kii mooy sunu mbokk jullit yi xamante ne ñu ngi leen di finnaal fee ñu koy lu ñun ñëpp. ñu ñaan yàlla xam nga yàlla def si jàmm. jàmm sax ci réew mi daal. di ma masaw coono ñëpp. di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak. di leen siyaar bu baax a baax a baax di nuy kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi di nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaw. noo doon dundee koor gi ak euh, entraînement yi. waaw koor gi ak entraînement yi moom comme ni ñu ko daan dundee rek parce que tamit yàgg nañ préparer ay combat ci koor. mën naa ne sama combat yi mujj yëpp ci koor la. Hmm. kon tàmm nañ ko quoi. Mm-hmm. waaw comme ni ñu daan pare rek dañ koy pare. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, ngay ngay ngay entraîner ci koor gi entraînement bi ak koor gi noo koy nooy entraîner yan science ngay def ak noo koy defee yan méthode nga koy def ndax mbër am nga com date combat combat bi am na date. combat bi am na date la 15 jours la. 15 jours waaw 15 jours nag sori na soriwul mais pré doon nañ ko waaw doon nañ préparer nag comme ni ñu ko doon préparé rek. Mm. parce que préparation corps ku ne xam ne ni guddi la. parce ñu ne jullit lañ dañuy woor guddi gi ngay entraîné deux séances ngay entraîné guddi gi bëccëg bi ngay dallu quoi. Mm-hmm. bëccëg gi nga dallu. waaw yaa ngi doon contact. waaw ñu ngi doon contact nag. parce que dafa am suñu ay booy yoo xam te ne dañoo am combat yu jege sax. Mm. te wax dëgg yàlla ñoom ñun ñoo leen doon contact li def lépp. Mm. waaw ñun xam ñu dañoo yor équipe bu ndaw moo tax ñun suñu école ñun ñun duñu tëj. Mm. ñun saison bu tëjëg bu tijjëg lañu yemale dañuy contact dañuy entraîné chaque jour. waaw parce que ay booy ñoo fa nekk xam nga am luñ bëgg am luñ gëm moo tax chaque jour dañ ciy nekk di profité tamit di ñaanaleel booy yi nga xamante ne dañoo am combat suñu borom may leen dam ku ci mel ne albarka kayre ku ci mel ne duwul moteur numéro 2 sama turandoo day bëre Jurbel ginnaaw soo lay bëre deux jours après que Lamb Assane Ndiaye daf si ñaanal yàlla may ko ndam xam nga ay ñoom albarka kayre ak booy yam combat écrit bi yëpp ak gamsu booy day bëre le 13 juin ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam caatu mook Liss Ndiago le 4 juillet ñu koy ñaanal suñu borom may ko ndam Zal Bool mook Caatu Yaraax ñu koy ñaanal suñu borom may ko ndam xam nga di ñaanal ñi nga xam ne tamit dañoo nekk si équipe bi ñëpp yàlla may leen ay ndam yu sedd guy waaw. sa combat yaa Quench ñu bari bari bari nee nañ double moteur Quench tey ñuy joxe favori yëpp ñi ñuy analyser nee nañ Quench mooy favori boo déggee loolu doon xale boo jugee ñu bari topp la euh, loolu nu mu lay def. waaw loolu lañ ciy sant yàlla rek. loolu lañ ciy sant yàlla parce que ñun ay xale yu ndaw lañ mooy ni koy ni ma ko yàgg a waxee rek ñun bu ñu duggee si làmb ak léegi yàggul 2015 lañ dugg si làmb ñu bay suñu waar xam nga di nekk suñu ruux di liggéey ba tey yàlla boo lañu si mbër yi bu ñu tuddee yenn mbër yi du ñu tudd loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax kon li ñu nekkoon tamit ba ak fii nii dañ ci gën a nekk rek ñun ay xale lañ dara jommuñu waaw te ñu ngi nekk si li ñu war a nekk saa su nekk xëy na peut tamit combat bi mën na rëy ci gars yi. mais ñun rey réussir ñun parce que ñun ay booy ndaw lañ amaana suñu adversaire moo ñu mag fuuf moo ñu jiitu si làmb kon tey jii ni ñun amuñu dara loo xamante ni tey jii ni dañ koy calculer lu ñu koy sóoraale li ñu war rek dañ ciy nekk di ñaan yàlla yóbbuñu si ak bis bi jàmm yàlla mooy ñun ndam waaw favori bi nag c'est normal mënul ñàkk parce que moo ñu jiitu hmm. te nit ki tamit lépp lu la jiitoo lu nekk rek am lu la ci ëppee expérience hmm. loolu dañ ko koy nangul waaw mais nag na xam ne am na combat parce que tamit ñu ngi waaj mentalement loolu du la def dara doo tëdd ba mu yàgg nga xalaat ni daal Quench booy laa am te xale bi jàmbaar la naan la bërekat la mystique bi ngemb li kenn waxaale wu. non loolu mënu def dara loolu mënu ma def dara parce que ñun ay xale ñoo opté nekk mbër parce que tey jii nii man comme ni la koy sànq rek ñun bi ñu jógee si làmb yàggul man ñi ma bëral ñëpp ma mag am na loo xam ne nag du suñu dara chance la rek chance bu yàlla def si nit la bi ñu si làmb ba léegi ñu ñu féete kaw rek la ñuy bëreel te yàlla mu ngi si suturaal bu baax a baax kon mënul doon dara si ñun dañ koy waaj comme ni ñuy waaj yeneen combat rek xëy na nag bii day raw parce que tamit combat la boo xamante ne tamit combat àdduna la waaw moo tax tamit dañ koy waaj bu baax a baax a baax parce que combat bu ñu ñor la bu ñu soxla la ñu ngi koy waaj nag bu baax a baax a baax oui. da dugg Langsar génn Langsar duggaat Langsar parce que bi ngay jël Quench yaakaar naa ne instant yi ma nga Tëngéej waaye ma nga woon écurie Langsar lan moo tax nga dugg fa daan fëgg duggaat fa. waaw mooy comme ni ma ko yàgg waxee rek xam nga ñun moom ñun fii lañ féetee ñun Dakar Plateau bi lañ féetee ay doomu Rebeuss lañ doo fi yaroo fi màgge fi di représenté Dakar Plateau tey ñun suñu adversaire ci banlieue bi lañ nekk parce que mënuñu bëri ñu nekk fii nii lu ñu bëri waa Bawol lu ñu bëri ñu nekkee côté dak secteur bi nii kon tey banlieue bi rek a bëril xam nga suñu adversaire ñoo nekk foofu noonu moo tax yooyu duñ ko sax bàyyi xel ay dugg duggaat yooyu yëpp du dara dañoo jàpp ni suñu adversaire ñoo fa nekk duggoon nañ fa yàlla suturaal ñu ñu duggaat fa dañuy ñaanaat yàlla suturaal ñu rek waaw loolu la quoi mais yooyu duñ ko bàyyi xel sax wax dëgg yàlla. Hmm. Hmm. barki démb dama jëli benn ñaankat bu mag. muy Masila Joom xam nga ko. Masila waaw xam naa waaw xam naa waaw. mu ne mu jékki-jékki wax ak man ba mu yàgg mu ne moom am na benn xale boo xamante ne ñaanalu ma ko vraiment waaye ngemb li muy ngemb xaw ma kan moo koy ngemb waaye naxu ko. ma ne ko ban xale la mu ne ma Quench booy loolu boo ko déggee war mu nekk sa adversaire ngeen war a bëre du def dara ci yow. waaw loolu moom mënul def dara ci man parce que <laughs> mooy li ma la yàgg a wax rek. ngemb dafa garaaw de. waaw ngemb garaaw na loolu mais ngemb dañ koy uti rek yàgg naa ko gars yi nee naa leen ngemb moom dañ koy uti rek waaw mbër moom li ëpp solo moom mooy nga nekk ci li nga war a nekk nekk say entraînement am doole bu wóor pour man mooy priorité parce que ngemb mën ngaa toog fii ñu dem utali la xam nga ngemb moom gars yi dañuy dem di ko uti rek mais doole ak fulla ak fayda ak jom kenn du ko kenn yaa ko utal sa bopp ak gëm-gëm ci nit ki lay nekk te yàlla def na loolu mu ngi si ñun kon pour ñun yeneen yi dañ koy bàyyi ñi ko war a gérer rek waaw te tamit ñi nga xamante ne ñoo ko gérer tamit wax dëgg yàlla tamit doyloo nañ leen ñuy ñaanal doyloo nañ leen bu baax a baax a baax ndax bañ dalee ànd ak ñoom ba léegi yàlla mu ñuy suturaal te heure bu ñu nekk ak ñoom tam dañuy rafet jot si lépp waa loolu la kese ñaan moom wax dëgg yàlla moom yàlla suñu borom rek moo yor ndam waaw yàlla rek moo yor ndam mooy may moom la ñuy tàll suñu loxo di ko ñaan képp koo dem mu lay ñaanal si suñu borom lay ñaan kon dañuy taalal loxo suñu borom rek di ko ñaan yàlla mu may ñu ndam moo tax ay affaire u ngemb wala dana moom duñ ko sóor ci mbër hmm. ah man boog du ma ko bàyyi xel ci mbër wax yàlla hmm. parce que bokk na si bokk na si dernière position yi position yi njëkk moom mooy fulla ak fayda ak jom ak entraînement hmm. pour man loolu mooy priorité ci mbër parce que mystique mën nañ la ko utali mais doole kenn du ko utal kenn yaa ko utal sa bopp te doole mooy bëre waaw kon yooyu moo tax yooyu duma ko sax bàyyi xel wax dëgg yàlla waaw parce que fii làmb ñëpp am ngema ah. fii képp kuy bëri am na ngemb ñëppay ngemb fii ñëppay ñaanlu képp ku fi jël sa avance fépp fu mu yaakaar dafay dem waaw loolu la mais yooyu taxawul quoi parce que tamit àdduna moom lépp lu yàlla bind doomu adama la ci gën a fonk moom la ci gën a suturaal ba tax na tamit jàpp doomu aadama yombul il faut gars yi dem di bàyyi xel loolu noonu. xëy na nag nit mooy ñaan te yàlla rek yàlla ànd ci wala nit di def dara nit ki yàlla ànd ci mu antu mais jàpp nit yombul nañuy bàyyi xel loolu noonu làmb li ci ëpp solo moom mooy entraînement rek am doole am fit am jom am ngor pour man loolu kese moo ci ëpp solo yeneen li ci nag da nga koy bàyyi ñu ko war a doxi ñu dem doxi ko waaw moo tax man yooyu du ko bàyyi xel parce que yooyu noonu am na ñu ko war a dox ñoom ñoo si dox man li ma war a nekk si laay nekk mooy samay entraînement chaque jour du ma toog bay calculer ay nit ci musique wala ay dara non non waaw. Ah. dimanche 15 août 2021 ñu ne ñu jékki-jékki na Quench Boy féete na di joor Double Moteur féetee na càmmoñ arbitre bi sifflé na nan ngay def da ngay attaquer xeex da ngay bëre wala nan ngay def ci kaw Quench parce que Quench moom xam nga ko. waa comme ni ñu daan def rek. attaquer xeex ñun li ñu daan def duñ ci bàyyi dara. waaw bu arbitre moom wax dëgg yàlla moom noo toll ñu ngi sa kaw. da ngay waaw déggoo li ma duñ làmb ji kay déggoo li ma la wax. làmb ji lépp lu mu laaj dinañ ko def ñun duñu daa xeex laa wax ba xeex laa la xeex jàkkaarloo moom weccantey kur wallaahi azim laa la làmb ji lépp lu mu laaj dinañ ko def du ñu xaar adversaire ci dara dara dara dara dara comme li ma ko waxoon laa koy rek moom na toog xaar ñu ñooy def lépp waaw na bàyyi loolu xel. Hmm. te waxoon naa ko ko xawaat na xam ne tamit parce que tamit coow li wax ji bëri na maa ngi ko dégg ci site yi muy wax rek xam nga. maa non maa ngi ko seetaan. Hmm. ci koor gi muy wax naan ay man dama ko doon topp di ko dëkk fu nekk ay fan sam ay dama ko doon dama koy fekk stade naan ko kañu photo ak yooyu na bàyyi yooyu xam nga. man wallaahi azim ku dee ak sa bàmmeel amul fenn fu ñu mës a daje man ak moom ma ne ko kaa ñu fotow budul benn yoon lañ mës a dajante esat fotow te boobu noonu contrat mu ñu yóbboon esat boobu moom mi ngi signé contrat moo Papis Général ñun ñu juge suñu combat ak Alioune Sèye Junior doon remplir suñu contrat ci Assane Ndiaye suñu xaalis sponsor lañu doon remplir foofu noonu moo ñu añoon signature bi bii ñu tax après ñu taxaw foofu noonu di fotow yaa ngi dégg mais maa ngi dégg loolu mu koy def ndam wala dara moom dafa mel ni moom lii moom da ko jomm te ñun ay taalibe la ñun dara jommuñu ñun dara rëyul si ñun ñun ñun ñun ñun ñun soxoruñu li ma ko waxoon laa koy waxaat rek am na loolu li muy jaawale ak fans dafa sore ak fans parce que tey ñun ay mbër lañ làmb la ñuy dund tey mbër kese moo mën a jaar fii nii ñu xool ko suñu xool sedd ñu kontaan rawatina nag mbër bu la supérieur te sa tey jii nii moo toogee yoon fii nii tey benn bal Gaye romb benn Modou sama xol day sedd. su ma ko mënoon jege nuyu ko dinaa ko jege nuyu ko parce que ñun ay làmb lañ ay mbëri ndal te ñoom ñoo ñu féete kaw yaa ngi dégg loolu nag dafa sore ak fans tey bu ñu toogoon fii jour romb fii nii professionnel bu romboon fii nii duñ ko faale parce que dunduñu football dunduñu ay rugby ñooñu bu ñu romboon fii nii gars yi daw leen ñun fi ñu toog duñ fi bouger mbër moo mën a romb fii nii féete ñu kaw ñu daw di ko xool wala dara loolu nag sore naak ay fans wala dara. kon yow doo fansam. déet fansam mënu ma nekk ci ay fansam suivre ko ci dara benn combat boo xam ne euh, xam nga ni ndeysaan sampion moo ne nii mooy. kon lenn daal am na naw naa ko respecté naa li tax man naw ko respecté naa ko nag bu mu ko yàq. Hmm. que dafa loo xamante ni moom laa ko nawee te moom la ko ñu bari nawee muy yar. yaa ngi dégg moom kenn xamee ko ay wax. yaa ngi dégg loolu nit ñi xamee nag na ci sax te xam ne loolu mooy dooleem parce que tey ñun man man li ma waxoon laay waxaat rek moom jàmbaar la te man man damaa naw jàmbaar damay bëgg jàmbaar. yaa ngi dégg te damaa gis moom ak jàmbaar te tey jii nii tamit ku ne xam na ni supporter dafa metti ngay jug sa waa dëkk ñëpp topp la dafa metti looloo tax tey jii nii maanaam heure bu daan bëri tam dama koy ñeewantal ci loolu man mbër buy mobiliser di andi ay supporter wallahi azim dama lay damay bëgg nga am ndam parce que dama xam li ci supporter parce que ñun dañoo yàgg a takk suñu ay tig tig di dem di supporter suñu ay see di ci daj coono yu méttee méttee métti amee defe du ñu lekk du ñu naan xam nga suñu amee ndam danaan neex lool kon xam nañ li ci supporter xam nañ coono bi supporter di daj moo tax bu la ko yàlla wërsëgalee nag tey jii nii far force day diis yéen bi day diis yaa ngi dégg si loolu lañ ko doon ñeewantal mais loolu dafa sor ak ay fans wala dara xam nga maa ngi ko dégg nag muy wax wala dara moom nañu nawloo te xam ne tey jii nii ñun làmb moo ñu boole. ñun dañoo gis ne da laa xeeb. mais dégg nga xanaa seetaanoo interview am mooy sax ay muy wax mais moom daf ñu war a nawloo respecté ñu xam ne làmb moo ñu boole ñu fay ko xaalis fay ñu xaalis ñu war a bëree parce que yaa may dégg ñun dañoo def suñu ay preuve ba làmb bool ñu war a bëree te bu ñu tëb ñu te ñu ne rek boole ñu ñu war a bëree wala ñu tëb te jël ñu jëluñu si lu ko neex dama xam ne ñoo fi sës làmb moo ñu bool ñu war a bu ñu bëreewu la ñu kan lay bëree amul keneen ku mu bëreel ñun ñu fi def su bëreel ñun yaa ngi dégg ñun suñ ko bañul wala bañ ñun suñ ko bañul wala estimé ñu ko waruñu bañ moom parce que ñun tey jii nii bëri nañ ay grand combat arène nationale bëri ay grand combat Iba Mar bëri ay grand combat fu ne yaa ngi dégg di mobiliser di bëri di daan moom dama ko tàllal loxo musul bëre grand combat na xam loolu noonu. musul bëre grand combat musul bëre grand combat ay spécial kese lay bëree. information de taille la Quench musul bëre grand combat. Azim musul bëre grand combat c'est la a sant ma ma dimbali ko laa la wax jël ko muy bëre grand combat bu doon man du bëre grand combat ay spécial kese la lan bëre musul bëre benn grand combat. yaa ngi dégg ma dugg lan saar daan fëgala fëgalaa ko raw ci lépp yaa ngi dégg mënoon naa dem xooli leneen ma dëpp jël ko na xam loolu bàyyi xel loolu noonu yaa ngi dégg xam ne am na combat nag te le 15 août yàggatul yàlla nañu yàlla suturaal may ñu jàmm ak tal ak fekkee ba bis ba incha allah waaw. combat bi actuellement nii yaa ngi ciy ñaanlu yaa ngi ciy commencé dugal sa xaalis. non combat bi ba mu taxee yàgg na ñun budul combat sax dañuy ñaanlu budul combat dañuy ñaanlu dañuy def xaalis suñu bopp loolu moom xaaruñu bàyyi am may combat pour ay ñaanlu wala def. xaalis ñaata nga ci def ci xaalis actuellement. non liñ ci def ci xaalis bari na la mënu ko wax parce que. <laughs> waaye yow million 1 million <laughs> un million boo ñu génnee benn sarax mu jeex di. un million boo ñu génnee benn sarax. ah mbëri seen catégorie fi ngeen toll ay saraxu mille cinq cent ngeen am deux mille. bon déedéet génn un million boo ci génn un million boo ci ñaari nag mu jeex di. yow di nga sarax ñaari nag ci làmb. <laughs> waaye yow ñun ñun làmb làmb amul luñ ci dul. làmb yow est-ce que làmb mos ngaa génnee ñaari nag saraxe ko wala benn nag sax ci làmb. barke alxuraanu karim billaahi wallaahi wa taalaahi waaye yow looy wax ni yow waa baa lii li ñun wax dëgg yàlla ñun waxuma la waxuma la waxuma la li ñuy fay wax dëgg yàlla mais ñenn ñi si ay nit ñu ñuy jàppale rek ñoom li ñuy nga xam seen côté li ñuy génnee di ko financer rek wallaahi azim moo ëpp li ñuy avance foofu barka alxuraan ku ci mel ni ay Mour Diagne ku ci mel ni ay Laat bopp xam nga ku ci mel ni ay Diop Dolaar xam nga ñooñu ku ci mel ni ay Ndiaye la ñooñu maanaam ñooñu li ñuy def ci sociale rek hmm. di ko génne seen xaaj di ko def ci sarax yooyu rek ñooñu mënu wax nu mu toll barke alxuraanu kërim waaw ñooñu rek dañuy génne xaaj wax tal ay maam góor sàmm ñooñu xam duñu bëgg sax ñuy tudd seen ay tur mm. ñu bëgg ñu lay wax wallaahi azim xam mm. ni dañuy génne ay sarax ba yow da ngay rus ay Ilimane Gueye taalibe Serigne Saliou Mortala Gueye ñooñu li ñuy def si social kenn daa xam nu mu toll mm. ñooñu li ñuy def social ba xaaj bi duñu ko fay sax wallaahi azim ñun buñ doon évaluer li ñuy def ci combat fay ñu xaaj bi billaahi wallaahi xëy na nag des mbër bu ñu wax ni xam nga yaakaar ay dóor la wala dara mais wallaahi azim du ay dóor ndax man yàgg naa toog di dégg mbër naan def na nangam ci mystique sax may toog naan mënul nekk mais dem naa ba xam ne wallaahi azim million kay mbër nee na def na ko ci làmb Saliou xam na ne laalax billaahi wallaahi talaay mbër day def si mystique lu ëpp 40 millions mbëri mag yi dañuy def si mystique lu ëpp 40 millions parce que dama koy xool ci suñu bopp ñun man bu ma xoolee ci suñu bopp ñun li ñuy financé ci ci ci ci xaalis ci côté mystique rek ci ay wàllu ñaan yooyu noonu si laay doog a gëm ne nag mbëri mbag yi dinañ financé ndekete li ñuy wax ay quarante millions da koy ràmb dem mm-hmm. barke bi nga toll dayo boobu ngay ngay sarax nag noonu la demee nag noonu la demee nag parce que tamit xam nga sarax dafa seer dafa métti mm-hmm. moo tax foo foo nga amul ñu la jàppale boo amul ñu la jàppale rek day métti moo tax des fois dama ko wax sama gars yi maa ngi doog a xam tamit aussi li bëri dem ba ci biir ñu woon ginnaaw bàyyi parce que dafa métti da ngay toll niveau boo xamante ni boo amul jàppale amoo ñu la taxaw ci ay sarax wala dara mm-hmm. amoo ay moyen wallaahi azim da ngay bàyyi barke alxuraanu karim wala xam nga si ay jafe-jafe ngay dëkk parce que mbër bu gën a ëpp ay jàppale moo lay gën a pare foofu loolu dafa am solo quoi. kon jàppale am na njariñ ci mbër. yëkkati xaalis jox ko. barki Seydina Mohamed mbër bu la ko ëppale moo la ëpp doole boo leen bëree mu duma la daan la lii man maa la ko wax mbër bu la ëpp ay jàppale moo la ëppale lépp barki alxuraanu karim hmm. jàppale dafa am solo ci laam moo tax chaque jour nag dañuy lancer message. ci woo gars yi ci combat bi surtout waa diaspora bi surtout waa diaspora bi ku ci mel ni ay Serif Daaf ay xam nga baa ni maay gars yi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi su ñoom ñoom pap gars yi bu ñu limee dañuy juum ñoom julde bàyyi wuñu kenn ñoom im nu ñaa gars yi yëpp la ñuy woo ci combat bi nii ñu jàpp si ñoom Pape Diouf gars yi te su combat bi soxla nañ ci soutien bu baax a baax a baax a baax suñu papa Diop si Baba Touré suñu président Saliou Diop xam dañ ci soxla soutien daal xam nga ku ci mel ni tamit Saliou Ndiaye Saliou Ndiaye kooku dama koy sand bu baax di ko gërëm Baye Zal Sandaga la nekk di jaay ay sëba ak ay affaire jigéen kooku dama koy sant bu baax di ko gërëm ndax nit la koo xamante ni nit ku baax la kuy sonn ñun donte bi ñu xamante léegi yàggul mais diggante bi séq na fekk ñun ay teraanga yoo xamante ni wax dëgg yàlla yombul ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay xéwalam yokk ay suduraam bu baax a baax mm. moom Saliou Ndiaye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ak ndongo doomu ndeyam xam nga ak gars yi nga xam te ne ñoo nekk ci marché bi foofu yëpp waaw waaw parce que tamit làmb dafa metti tey gars yooyu rek ñooy làmb nag ñoo di si jàpp ñoo ñooñu ñooy làmb parce que ñooñu ñooñu ñooy yëg seen xewal si def bu dee ñun ak ñun liñ ñu fay mënuñu si préparer combat li ñuy fay bu dëgg rek la yàlla bëgg li ñuy fay mënuñu si préparer combat mënoo ci def li nga war a def xam nga dimbali say mbokk mënut a nekk te tamit ay ndaw lañ ba pare tamit mm, tamit nekk nekkuñu fii nii tamit di nekk suñu carrière ci làmb nii di dem nii rek te duñu réaliser dara mhm. parce que làmb dafa métti on sait jamais kenn xamul. Mhm. loolu tamit conseil la pour mbër yëpp képp ku ci nekk tey jii yàlla di la dimbali li ngay mën a néew soo mënee teel a réaliser nga teel a réaliser xam nii waaw kenn xamul luy continuer yàlla suñu borom rek moo xam luy continuer moment bi nga ci toll nag mu wuyu si la yàlla dimbali la nga teel a réaliser parce que tamit ñaanuñu yàlla li dal yenn mbëri wala li dal yenn ancien gloire dal ñu. xam nga dem ba toll ci làmb fenn fi ñu lay xam nga ñaanal ay ndimbal wala nga yama yenn jafe-jafe ñu lay ñaanal ndimbal ak yooyu loolu moom dama koy ñaawlu xam nga kenn bëggu ko tamit yàlla na xëy na mooy dogal mooy tracé ay mbiram noonu mais tamit am na loo xamante ne conseil la pour ñun mbër yi ñun jeunesse bi nga xamante ne ñun relève yi nga xam ne ñooy doog a ñëw nekk ñëw yenn yenn yi si ñun ñun loolu war nañ si mën a jàngat lu bëree baree baree bëri xam ne tey jii nii tamit ñii nii tolloon nañ niveau boo xamante ni ñun tolluñu fa wala tolloon nañ niveau bu raw buñ jamono ñi xam nga te tey gis nga ñu ngi dem bay am ay jafe-jafe ñu la di ketal ak ñuy dugg si yu nekk xam nga kon tey ñun nii fi ñu toll war nañ mën a teel a réaliser wala teel a xam nu ñu bëgg. waaw loolu lañu conseil la pour mbër yu ndaw yeeg ñëpp waaw. barke alxuraan parce que làmb dafa metti te on sait jamais boo xasee mbër boo ko nekkee mbër nga gars yi mën nañ lay jàppale mais boo xasee génn làmb gars yi li jëntee tuñ la la fois passée da koy xool ci yax yu joob yëgi nii hmm. jamonoy problème bi ku coow yeeg yooyu noonu bi mu génnee di changé booy dañoo toj bopp bi mhm. bi nekk mbër di dëgg-dëgg Yaxya Jóob fu mu génn fu nekk bu ne xëyee gars yi arrêté boo génnee ci làmb mhm. mhm. boo ci nekkee yaa ngi ci boo ci nekkul nekkatoo ci moo tax nekk si ngay li a def ba ëllëg ci biir boo ci nekkatul tamit di nga mën a lijjanti sa bopp di nga mën a demal sa bopp te xam nga doo am jafe-jafe loolu nag conseil la boo sama mbokk mbër yëpp laa koy wax parce que kaa li ma koy gis dafa bëri wallahi azim baaj lii kaa yooyu li ma koy gis dafa bëri bëri na ay mbëri ndaw yu muy dal yoo xam ne dañuy nekk say problème des fois dañuy nekk say situation yu méttee métt parce que mbërum ndaw dafa métt ñun nii nag génnaguñ ci loolu xëy na nag yàlla moo ñu suturaal dimbalee nañu amuñu dara mais am nañ ay nit ñoo xam ne tey jii nii bu ñu suñu bër xonkee wala ñu nekk say jafe-jafe buñ leen fëggee tey jii nii ñu taxawuñu loolu rek lañu yàlla dimbalee mais bu dul loolu noonu tey jii nii wallahi azim amuñu dara ci làmb làmb fayaguñu dara parce que tey lépp loo xamante ne tamit ñu koy fayagu ci làmb dañ koy dugalaat ci làmb waaw parce que am na ñuy topp suñu ginnaaw yaakaar ñu te ay ndam rek lañ leen mën a fayee waaw moo tax du ñu lekk dara bàyyi ñooñu lépp loo xamante ni yàlla wërsëgal nañ ko dañ ko ciy def nekk seen ñoom parce que ñoom ndam rek la ñu sant ñun yàlla dañoo dimbali supporter yi ñoom ndam kese la nga xam sant ñu leneen lu dul victoire kon lépp loo xamante ni tamit def ñuy may victoire dañ ciy nekk voilà mais làmb dafa métti quoi foog yi tamit jàppale ak mbër yi waaw yi foog gars di leen jàppale. am na solo hmm, autorités yi tamit ñu ngi leen di woo ci combat bi ku ci mel ni Bamba faal ñu koy woo ku ci mel ni ministre Yakham Mbaye xam nga di leen woo ci combat bi ñu ñëw jàpp si bu baax. suñu bu yeboo ñoom ñëpp nañ jóg. combat nga am de. waaw xam nga. combat bu rëy nga am. moo tax foog gars jàpp si nag. ñaari mbër yi dàq ci làmb lañ bool moo tax ku ci mel ni tam suñu maire Aliou Ndoye. Hmm. ñu ngi koy woo ci combat bi. Seydou Camara moom mention spéciale Seydou Camara moom dañ koy sant bu baax dañ si jàpp ay ñoom buraagaay ñoom dañ leen di sant parce que dañ siy jàpp mais Alioune Ndoye dañ bëgg mu siy jàpp parce que moom mooy suñu maire li Bamba Fall def mil naa lañ bëgg mu koy def tamit ñoom ñu ñuy taxawu parce que bu ñuy dem tam drapeau Dakar Plateau bi la ñuy représenté yoon la bu ñu amee combat tey jii ni ñu jàpp leen jëndal ñu ay billets jëndal ñu ay bolok xam ñu ko koy dagaan nag Alioune Ndoye ñu ngi ko koy dagaan bu baax a baax encore une fois mu ñëw jàpp si combat bi la 15 août soxla nañ si ndimbalam bu baax a baax ku ci mel ni ne mooy Moïse tamit moom yàgg na si jàpp xam nga ñu ngi koy taalal suñu loxo Elimane Gueye taaliba Serigne Saliou ko moom mention spéciale xam nga dañ koy taalal loxo Sora Ala Ndiaye sama doomu ndey moom combat bi combat am la. waaw moom sama waay la wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla sama waay la sama nit la moom. xëy yi bëri ñoo mu seetlu mais bëri na samay combat yoo xamante ni day tax day nekk sax sama cumikaay sa fa yàgg quoi ku yàgg sonn ci man la ku ma yàgg jàppale la ku yàgg jàppale la waaw coow li bëri na trop nag wallaahi mais combat bi combat am la waaw barkaatu xuraan combat bi combat am la ne ma mbëri ma naa ma combat sama combat waaw um, demoon na fan yee de siyaare ji eh, barab ba. waaw moom mooy loolu. combat bi combat la sama waay la nag <laughs> maa ngi koy siyaar moo xalil xalil dem sama doomu ndey maa ngi koy siyaar bu baax a baax xam di woo ñoom Aziz Ndiaye ñoom Baye Ndiaye surtout Baye Ndiaye parce que moom sama turandoo jarbaar la. waaw moom sama turandoo jarbaar sama mag moo bokkoon rek Baye doomam moom lañ ko tuddee. muy doomu ngunda xam nga kon ñooñu maanaam ci benn famille la quoi war nañ ci mën a jàpp quoi. waaw bëgg nañ tam ñu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax teg ñu loxo waaw di woo Dakar Plateau bi Médina bi Fass Colobane Gueule Tapée bi gars yëpp ñu ñëw jàpp si di gërëm tamit waa Somone waa Somone aw ma seen fay maa leen sant bu baax waaw parce que ñoom dañ may jàppale bu baax a baax baax a baax sama gars yi nekk Somone ku ci mel ne Abdoulaat Bopp kooku mention spéciale kooku moom bu ma amee combat dama koy mujj sax yërëm barke alxuraan day génnee ba man man maa koy mujj ne ko doy na wallaahi azim barke alxuraan kërim dama koy mujj yërëm parce que xam naa ni xam nga xër lay demee xër lay demee moo tax xam nga du bëgg kenn def dara day bëgg di def lépp ci ay jour combat bu ñëwee fii du bëgg kenn génnee benn sarax dañuy ñëw tak day bëgg def lépp te affaire yi day metti te ñun surtout ñun man suñ suñu combat suñu ay sarax day metti trop parce que tey jii buñ la la waxee tey jii nii waxuñu la avant làmb ji rek mais jour combat bi rek wallahi azim li ñuy jënd li ñuy génnee ci ay sarax barki Seydouna Mohamed ku dee ak sa bàmmeel ci koor lañ jógee wallahi ay millions la barki alxuraanu karim millions jour combat wallahi wallahi watallaahi yàlla moomu tiim ku dee ak sa bàmmeel eh, jour combat double moteur ba tiital kuwet euh, sa ndax sarax li ngay génnee ci làmb loolay wala li mystiquement combat bi da koo loolu sama combat yëpp loolu ba may bëre combat préliminaire la ba léegi maanaam looy gën di dem nag mystique xaalis bi di gën di yokk mystique bi di gën loolu loolu loolu suñ ko dee waxuñu ko pour suñu adversaire wala dara parce que tamit li ñuy génne amaana du sax pour suñu adversaire kese hmm. yaa ngi dégg parce que pour suñu bopp la quoi hmm. sport lañu wax te làmb nekk ñun ñun ñun bu dul làmb tamit ay nit lañ hmm. yaa ngi dégg te am na yoo xam ne tey tamit ñun dañuy aar suñu bopp yaa ngi dégg loolu du suñu adversaire suñu dara pour suñu bopp la ñun mais maanaam dama ko waxee maanaam comme cadre coono yi mu ciy daj moom mooy Abdoulaye bopp coono yi mu ciy daj nga xam ne day da ciy def xaalis bu weex tàll moom mu mu jaañ dañ ciy def xaalis bu weex tàll laa la wax barki alxuraanu karim ak njaay ndee la ñooñu ñooñu jour làmb duñu bëgg kenn génne dara xam nga ku ci mel ni Boubacar Diela aussi tamit moom moo yor fast food bi nga xam ne fa laay lekkee fa laay defee lépp kooku tamit aw ma fayam dama koy sand bu baax di ko gërëm parce que tamit ba may bërëm ba pat ba léegi la teel chaque jour dama koy wax parce que yombul tamit xam nga mbër bu ndaw jàppale mbër bu ndaw moo gën a metti parce que tey yii boo xoolee tey yii nii loolu mooy jàppale ki nga xamante ne yaakaaroo ci moom dara kuy bëri ay mbapat koy fay ay 3000 ay 5000 kooku xam nga ni boo ko dee jox ay hamburger yu jar 2500 di ko jox ay ay reer yu jar junni ay poulet entier kooku xaaroo ci moom retour xaaroo ci moom dara da koy def te yàlla ta te da koy doon def ba ñuy bëri mbapat laa ba suñu jënd yàlla ay tey ji wallahi azim suñu reer suñu añ suñu reer ndékk chaque jour day ñëw fast food lay jóge chaque jour day ñëw duñ koy andi di ñu ko jox chaque jour ñu koy lekk barke alxuraanu karim mbër day war de mbaa du commencé. te sama gaay yëpp wallaahi doon roi des arènes rek di di di limité lekk bi naan ah, lekk fas bi doo wóoratul. yàlla tere barke alxuraanu karim boo ko jeelaa kooku sama nit la kooku dama koy bàyyi suñu borom mook papam jeelaa dama koy bàyyi ak suñu borom yàlla xam di yokk ay xéwalam bu baax a baax a baax parce que sonn si ñun la du tey quoi dafa yàgg papam nekk nit ku baax mm. ma koy ñaanal restaurant yi yokk fast food yokk xéwal yi yokk bu baax a baax parce que papam nit ku baax la papam aussi dem noonu lay sonnee ci man ndax bu combat taxee day jënd ay billets. Mm-hmm. jox boo yi nekk secteur boobu noonu yëpp ñu dem e stade mm-hmm. loolu nag yombul xam nga di ko def ba mu koy def ak léegi ay at ba léegi tey la gaa la gën a aay kon kooku dañ koy ñaanal yàlla rek xam nga di ñaanal tamit sama gars yi nga xamante ni tamit ñoo nekk ci jeel bi ku ci mel ni bébé Diène mm-hmm. maa ngi koy ñaanal yàlla tamit waaw champion la ndaanaan la suñu waay xam nga ñu nekk woon fi mu rafet lool ñu koy ñaanal yàlla yàlla génnee ko ci xar-xar yeeg coono yi métti na nag mais na xam ne lu métti góor lay dal te lu métti yàggul et mm-hmm. ay nattu la rek du dara mm-hmm. xam nga di profité tam di gërëm groupe WhatsApp bi 100 pour bi 100 pour cent Rebeuss yi gars ñu ngi leen di gërëm parce que tam 100 pour cent Médina bi def nañ ci ay man lañ si jiital xam nga dañuy dajale ay xewal di ko si jàppale wala affaire yooyu noonu mm-hmm. waaw gars yi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw gars yi fàttewuñ ko benn yoon mais ñu si war a jàpp dëgg-dëgg war ci teg loxo nañ ci taxaw parce que ndaw la ko te tam fee mu nekk tamit metti na trop soxla na ndimbal soxla na lu ko fa jëlee mm. na si gars yi jàpp te xam ne xale mooy juum daal mm. waaw mosuwee na gars yi jàpp si bu baax a baax a baax yàlla génne ko fi ku mu fa fekk mm. sama yi fa nekk yëpp xam nga di leen tamit ñu génn foofu noonu ñi nga xam ne dem ñoo tëdd ci hôpital yàlla fëgg seen ay bopp xam nga ñi nga xam ne ñoo fi des nekk fii nii gaan yàlla dafa leen jàmm ak tawféex waaw suturaal leen bala 15 août yàlla may ñu ndam lu sedd guy ci kaw kon loolu laa am lu may wax di gërëm tamit sama copain bi am di Moustapha waa moom sama waay la sama lépp la wax dëgg yàlla yàgg nañ du tey quoi mën naa sama ami d'enfance ñoo foondoo ñoo defandoo lépp waaw am di dóor waar sob ñu koy sant bu baax di ko gërëm barke yàlla sama waay la nag dama ko sonal bu caaxaan jeex dëgg des lu ma bëgg fii nii su ma ñëwee wallaahi azim dama koy jël ma yor ma ñàkk yor su ma ñëwee fii lu ma fi bëgg wallaahi azim dama koy jël barke alxuraanu karim événement lu mu xat xat xat xat xat xat xat xat xat laa la ñëw fii nii wala ma war dem fenn tey jii nii aw ma lu ma sol damay ñëw fii ne xool lu ma bëgg sol ma sol lu ma yor lu nekk sama poche laay génne ne ko lii laa yor te wallaahi du si teg baat